national ñom japp ne ñom neneen dañuy ñu ngi prendre acte ci décision bi nga xamné le président Bassirou Diomaye Fay jël nako mais après toftal nañ ci yenen cadeau ñu ngi xamné né euh, ñaar ñi nekk au pouvoir euh, dañuy rek réer ci gestion du pays bi motax euh, ñuy jëm a salfaañe ñi nga xamné mo moo nekk nos institutions ñu ngi appeler aussi Sénégalais ñu lutter par rapport ak li nga xamné nduduna une dictature rampante ñoom noonu leen ko waxee. bon <clears throat> man li ma gëm mooy c'est discours boo xam ne li olof Njaay du wax euh, ci gémmin guy nàcc la jóge te gémmiñ guy nàcc du wax jàmm mukk mm-hmm. xam nga kuy xaar APR walla Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. ex Benno wax lu rafet ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye loolu dafa mel ni ngay xaar démb ñëwaat tey parce que ñan ñooy wax loolu mooy ñi nga xam ne dañ fi nekkoon douze ans di daan di seddoo réew mi di noos di brimer peuple bi di réprimer peuple bi di def li leen neex ak liñ bëgg ku wax ñu boom ku wax ñu jàpp tëj ku wax ñu jàpp exilé jël suñu ressources naturelles yi piller ko jël réew mi parta séddoo ko yàq réew mi en niveau boo xam ne Sénégal benn nguur musul yàqee noonu réew mi mm-hmm. waaye ñooñu buñ fi toogee di la wax vision deux mille trente cinq nga xam ni dañ cee war a jóge de milliardaire dem ci multimilliardaire mm-hmm. ñiy war ci jóge dem millionnaire dem ci milliardaire waaw ñooñu bu benn nit ku tudd Ousmane Sonko jugee na leen dama am projet projet bi mooy leen mooy jëlee leen ci bopp réew mi su leen jëlee ci bopp réew mi lan laay indi Sénégal meilleur Sénégal pour tous loo xam ni àq yi ku nekk dañ koy jox àqam ressources naturelles yi dañ koy la yoon exploitation bi dañuy renégocier contrat yi nga xam ne ñoom dañ ko négocier woon jot ci ay pots de vin

dafa mel ni age waa troisième âge. ci ñoo xam ne matagul six mois seen kanam yi commencé def ay pax. nga xam ne ñuulal yu cher yi mënatuñ ko. bopp yu weex. ñuy ñuy mer rek nag sama xel dem ci Amel Aidara li mu waxoon opposition seen réunion dafa métti. day tàgg discours yi maam dënn yi day xat. mu mel nii yow waa Bandiax leen daje. ñooñu mënuñu bëgg lii. lii lii lii xam nga lii lii jotaayu lii comme lii comme ñu sa ngéem ñii mënuñu wax lu baax ci Ousmane Sonko. Uh-huh. donc ñooñu ñoo wax ni voilà ay boroom xaalis yu seen xel dalatu. waaw waaw ay borom xaal yu seen xel dalatu. ñooñu mënuñu wax lu positif ci le tandem Sonko Diomaye uh-huh. mais le peuple qui s'est exprimé lors des dernières élections moom il est satisfait.

<laughs> c'est les perdants. oui dicton bi nag am ko waxee les perdants racontent l'histoire les vainqueurs. Mhm. écrivent l'histoire mhm. donc ñom <laughs> fim mu lu ne dañ ko wax ci lu ñaaw. Mhm. Dañ ko raconter ni mu leen Oui. Waye ñi gagné ñom ñi ngi bind histoire bi. oui le président Diomaye est en train de d'exécuter des commandes populaires. Les mhm. sénégalais sont contents. Ils demande Les vraiment sénégalais nous, beaucoup tout le gis Abdou Mbow Ils plénière ba. sénégalais. Mhm. xam nga

taxaw ah, ñu am ñun la Macky Sall tollu on est en train de démaquiller démaquiller la démaquisation waaw de l'État mm. te des na nag ci ay poste des na ci ay direction des na j'espère que dinañ ci ñëw incident bi amoon tey mm. ak Senelec man loolu am naa ci xalaat mm-hmm. ce pays n'est pas en sécurité mm-hmm. parce que bu fekkee coupure mun na am benn poste Dakar paralysé mm. non de Dakar le Sénégal le Sénégal paralysé Ziguinchor n'avait pas de courant man kenn nit wax ba Kaolack y avait pas en plus dafa amoon problème de réseau ah kon baax na kon bismillah j'espère que l'état donne des ay mesures voilà voilà léegi euh, ba bataille. Euh,